Mais euh, je voulais juste te dire que je suis excessivement fière de toi. Genre, à chaque fois que Mayday vous sent envie, beaucoup à voir. est-ce que est es que yow envie. Non, talent ne peut pas. tout le temps a marqué, mais qui est-ce que as envie parce que je trouve ça bizarre genre di à la gueule, même là. les dégg en le Non, je trouve ça jamais dina comme man sama sama jëkkër dafa bëri album

gisoo ko ni mu simple nii ak ni muy def ci réew mi artiste bu mel nii gisoo sama Jackson 5 bi ci yenn kaw moo ko soxla baax yaa mën sañse mais yow eh mën nga woy de yaa mën a mën a Baba Ndiaye dafa soxor Baba Ndiaye dafa soxor parce que Fatel du ko kii du ko Fatel. waaw ah, même bu ñu doon si biir. moo yàqu boppam rek. macha allah rafet na. donc di leen di leen di leen di leen ñaan ngeen mën a mokk loxo.